ki xam la féete jariñu màggal ma tàmbuleete te wax la féete te xam la féete jariñu màggal ku jub di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi ak la màggal néegu ga màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko woote digle ji bernde looloo di màggal dix-huit safar mi ku di màggal Itaali xam naa Faransi xam naa Almaañ xam naa li moo di màggal waroon na kon moom nday ku ko xam ko ku ne xam ko ci diine ak lislaam ak fulla ak fayda ak ngor waaw xam ne xutbu samaan la Serigne Saliou mooy borom jamono kon bu la Serigne defee nii nga mel nii nga mel fa Serigne Saliou tegoon tànkoom fa nga teg sa tànk kan jàll ndaxoo kenn ñëw leen siyaar bu kenn denc dara lu waaye am lu nekk na joxe ngir jëmmi Serigne Saliou te fas ci li nga bëgg te xam ne bis bii bisab yokkute la de Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am mbiram day yokk rek te ku fi teewoon daaw tee fi xam nga ne am nga ak yokkute tamit déwén lay gën a yokk incha allah barki Serigne Saliou soxna yi da ngeen waroon gaaw nag yéen am na ci loolu déedéet mais am na loo xam ne kenn du ko def da ngeen di gaaw da ngeen di gaaw bisimilah bisimilah may ko mu ñëw bisimilah xanaa bisimilah dama bisimilah yaaram ñëwal ñëwal bisimilah. tëjal ngay aw rek. ku ko jiite ay at. kenn gu la ci lenn ah wax dëgg yàlla jiite bi rafet na yaay jaata yàlla na taalib bi yëpp ñu ngi lay siyaare daara Kanzul Muhtadin daara soxna Faat Jaxate Grand Médine daara soxna Faat Jaxate Pikine Bakayar xidmatu saalihin yëpp rek ñu ngi yóbbante ku ma fete gannaaw ñëwal fete ma kanam ku fete gannaaw sëriñ bi rek ñëwal fete ko kanam toog leen sëriñ bi nee na fu waay toog rek na toog fete ko kanam rek waaye fu waay toog na toog góor ñi leen fete soxna yi fete nii jaxasoo bu mu am te teewlu na te taatal te nangu xéewal gi waaw ñi ci ginnaaw toog leen sëriñ bi ne ne ñëpp tàllal loxo yi ne kenn ku nekk ci yéen na lim bëgg ci xolom ak ni ko bëggee ak fu ko bëggee ci barke borom jamono. sëriñ bi ne fas yéene summeeku ci lépp ci doomu aadama ci lépp ci doomu aadama fas yéene sol lépp lu ci doomu aadama ne bismillah tàllal loxo yi amin الرحمن الرحيم ودل جنازة تروف وبنزا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم man di lool lool di sant lool lool ci biir shamsi wa duhaaha bu gën la jàmbat lépp na xëy ma bu gën la jàmbat والسماء والبنات والأرض والماء ونسيب ما سواها la lépp maase lex lépp maase man dassaa كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها lu rëy ci xaadim li woote màggal jomay ñu xam li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata as-sitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع magalla bongo nanu go bongo ku gore sëriñ bi ne bu kenn dem ne ñëpp taxaw ñu julli bu jullee ba noppi ñu yore wàllu xéwal yi ñu ne danoo bëgg na andi xéwal yi ci bas bi laal ci bas bi ñuy añ aña fi loolu woon ne kum jàppandi rek toogal ci bas bi ñu andil la fi xewal yi léegi xeeti xewal yëpp dana fi ñëw nee na ku taxaw nan li xaam ñu julli di xaamal te wax la féete te xam la féete jariñu màggal ku jóg di màggal li Yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi Yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko loo imaam dix-huit safar mi ku ne moom mi rekk di màggal Itaali xam naa Faransi xam naa Almaañ xam naa li moo di màggal ku jóg di màggal